Ne touchez pas aux zircons. Ne touchez pas aux zircons Depuis ans et la découverte du zircon dans les dunes de Niafran, l'euphonie est sur le qui-vive. Le minerai, pas encore exploité, sème déjà la division entre les partisans et les opposants à l'exploitation. Depuis euh, longtemps, Abéné est pour le projet. Abéné est pour l'exploitation du projet. Parce que nous avons vu que dans ce projet, il y a l'intérêt d'Abende dedans. Ils sont partis manipuler un village pour qu'ils aient avant de venir exploiter les zircons. Mais le village qui est impacté, le lieu d'exploitation, ce village-là n'est pas d'accord pour l'exploitation. La violence s'invite souvent dans le différent entre villages. C'est irresponsable pour ne rien arranger à la situation. La rébellion casamanceaise s'en mêle et souffle sur les braises. L'exploitation du zircon à Niafran va représenter, comment ça se dit du volcan, la crache du volcan, c'est-à-dire la reprise du feu. c'est clair. Nous Malgré toute cette agitation, le village de Niafran reste fermement opposé à l'exploitation du zircon. Pour nous faire une religion sur le sujet, allons voir ses réelles motivations. dressant contre l'exploitation du zircon, les habitants de Niafran sont convaincus qu'ils mènent une bataille pour la survie de leur village. Ils considèrent la dune renfermant le minerai comme un obstacle naturel à l'avancée de la mer qui aurait déjà fait quelques dégâts. Il y a ans de cela, là, juste derrière il y avait un restaurant. Après, il y avait deux rangées de filao et à mètres, il y avait la plage. Mais dans les cinq dernières années là, la mer a beaucoup avancé. Du coup, elle a tout bouffé. Les rangées de, de, de, de filao et le restaurant aussi, il est dans, l'eau. Euh, la mer menace. Oui. Même sans exploitation du zircon. Oui, sans exploitation du zircon, de toute façon, c'est un phénomène mondial. Mm. C'est un phénomène mondial. Mais maintenant, le problème qui se pose ici, au lieu d'exploiter le zircon, il faut chercher à trouver la solution, comment freiner l'érosion côtière. Zircon ou pas zircon, la mer, elle avance, c'est une réalité. Et en ce moment, le seul rempart pour empêcher la mer d'aller de l'autre côté, c'est la dune de sable où il y a le zircon. Donc il ne faut pas l'affaiblir. S'il y a exploitation du zircon, la dune s'affaisse et ça va être un désastre euh, monstrueux. Les activités des villageois de Niafrang sont principalement concentrées

ça redonne un aperçu absolument. Le bolong et la mangrove se retrouveraient ainsi menacés, tout comme les principales activités génératrices de revenus, comme l'élevage d'huîtres. fekkee ne mangrove yi yëpp du tuuti mun na mun na ko sonal suuf lay lekk suuf lay lekk loolu moo tax bu demee bi day wàcc buum bi day wàcc léegi dafa laal suuf waaw léegi bii moom dañ koy

sonn nañ di liggéey suñu liggéey ñu ñu dund te suñu maamati maamati maamati maam ñun ñu ngi fi waaw ñun ñu juddoo ba suñu doom yi ñun ñu ngi fi ñu ngi dundu dund jëmbat ceeb ñu góob ko ñu lekk ñu ngi ci wuti jën wuti paañ nga lekk nga daanal ñuul nga togg ko nga lekk loolu daal moom mooy suñu dund dund ñu beneen façon dund ñu ñafran loolu mooy mooy suñu dund waaw léegi jën yi euh, comme buñ ko lépp xam nga lépp du am lépp du am espace bii ñu nekk fii Euh, daanaka ñi dëkk Ñaafarang fii la ñuy liggéeye seen activité yëpp daanaka fii la nekk. fii la nekk. Hmm. fee nekk suñu jardin yëpp suñu jardin mu ngi côté bi ay bio ñu bio la ñuy liggéeyee. Hmm. waaw suñu suñu bio jardin bi amul engrais. Hmm. amul dara ay xob xob yi la ñuy lii ak ñu jënd puub yi. ñu di ko liggéeye am ñu ndox sax fu ñu toll nii parce que xorom bi. ziit ko mbéb bi ko fi gasee. xorom bi bu dëgg ci ceeb bi ceeb bi du mën a baax ceeb bi day dee comme ça léegi fu ñu nekk ne ci digg bi rek la ñuy béy yëpp xorom la waaw loolu moo tax it ñun affaire jit ko mi daf ñoo jommi moo tax bugguñu ko te bugguñu ko suba bu ngeen ci muñee jàppal ñun bugguñu ko moom zircon bi fële lañ ko war a fii la fii fii fii fi nga fi nga seen noonu rek la mm. waaw comme naaj bi tàngee nii boo demee bi ci suuf sax da nga gis ni muy melaxee mm. waaw fii la fii la ci fii la waaw loolu rek donc bu ñu commencé exploiter dañuy dindi dune bi dañuy dindi dune bi ba set bu dun bi bu dun bi dañee géej gi mën na ñëw. mën na ñëw. Maintenant, selon mes informations, ils disent qu'ils ont fait une étude d'impact et il n'y aura pas d'incidence euh, écologique, euh, environnementale. Mais écoute, euh, toute exploitation minière a des conséquences euh, sur l'écosystème. Mmh. Maintenant, le problème qui se pose, il faut, il faut, il faut une audience publique. Il faut l'exposer aux populations, c'est aux populations de valider le projet. Mm. Donc, euh, vu qu'il y a un conflit d'intérêt entre le consultant qui a fait l'étude d'impact environnemental et en même temps il est dans la société, même s'il y a des conséquences défensives, il ne les dira pas. Et il y a beaucoup de manquements maintenant dans cette étude d'impact euh, environnemental. C'est pourquoi d'abord et de connaître ce village paisible de Niafran. Ce fut un réel plaisir et certainement nous allons revenir. Merci beaucoup Mbizane, euh, c'est partagé. À mon avis, euh, c'est intéressant que des jeunes journalistes comme vous fassent un peu de recherche, euh, aller à la proximité pour trouver la bonne information. Moi, j'ai vu même au niveau de l'administration, il y a certains, ils sont dans les bureaux, là-bas, signer des documents, sans pour autant s'imprégner des réalités.